salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal tey sénégalais yi dañu xëyee ak loo xamante ne leen naqari la muy ay kàddu yoo xamante ne kii di Ahmed Suzanne Camara daal dina ko yëkkati jëmee ko ci njiital réew mi Ahmed Suzanne Camara bu ñuy wax démocratie ñëpp xam ne ne démocratie elle est encadrée bu la neexee nga wax lu la neex ci ci ci ci régime bi waaye nag dafa am ay kàddu yoo xamante ne nii yu tegginewul dañu jàpp ne boo ko defee rek mënuñ ko génne ci offense au chef de l'État ñu dégg benn plateau bu mu def biir Seneweb daal di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni yu tegginewul te kàddu yooyu tey bu fekkoon ne tey waxoon nga ko ci jamonoy Macky Sall ah maanaam doo toog une heure de temps boo xamante ne yóbbuwuñu la wala oowuñ la ngir def nga li ñuy ooyee offense offense au chef de l'État te eh, eh, bu ñu ñu xoolee ci baragay bi ñu koy jàpp mitin ba amoon Mbàkke lañ lañ ko jàppee ah dafa ne su fekkee ne Macky Sall dafa bëgg a lekk Karim Wade na ko lekk amatu Sall ancien garde des Sceaux yëkkatiwaat même kàddu yu mel noonu ñu daal di ko jëli këram mais Ahmed Suzanne Camara il est allé plus loin démb ci émission bi mu def Seneweb wax na wax yu ëpp wax yi nga xamante ne ni moom la Bara Gaye waxoon wax na wax yu ëpp wax yi nga xamante ne moom la El amulu Amadou waxoon moo tax nag ñu jàpp ne xëy na guddi ñu toll nii video bi nga xamante ne nii Ahmed Suzanne Camara def na ko ci biir Seneweb xëy na autorités yi gisuñ ko à savoir le procureur mais jàpp nañ ne bu ko jotee rek Ahmed Suzanne Camara warul nekk ci jàmm guddiñ toll nii parce que loolu li muy incité dafay incité kenn koo xamante ne nii ku ci ku ko doon ragal a def wala ku ci doon hésité bu subaa mu def ko gis nañ ne les responsables de la l'APR guddiñ toll nii ñu ngi ci plateau télé yi ñu ngi gesticulé wu ñu ngi wax lu leen neex loolu am problème parce que on est en démocratie ku mu neex na nga wax ne régime bi nii Euh, Ousmane Sonko nii Diomaye nii c'est c'est c'est autorisé en démocratie et que ñoom ñi jiite aussi dañuy accepter critique waaye nag yëkkati ay kàddu yoo xamante ne nii tegginewul jëmee ko ci koo xamante ne nii institution la wax dëgg yàlla jàpp nañ ne ku def lu mel noonu ñu bàyyi la fi bu ëllëgee dina pousser à ñeneen ñi des jàpp na mbir yi noonu la war a doxee noonu la war a doxe ku mu neex nga wax lu wax bu la neex nga jëmee ko ci président de la république donc démb gis nañ ne sénégalais yu bëri xaw nañu choqué ci kàddu yi nga xamante ne nii Ahmed Suzanne kamara wax na ko yàgg na di wax nag lu mel noonu yàgg na di wax lu mel noonu mais démb dafa franchir le Rubicon hier il a franchi le Rubicon parce que su yëkkatee kàddu yu mel noonu même gis nañ ne journaliste bi sax. ñu ngi ko doon wax ne ko Ahmed Suzanne Camara jëkkalaatal say kàddu parce que ki ngay jëmale kàddu yi c'est une institution te c'est notre président de la république mu ne ko du sa président bu buy nekk yow la nekk sa président waaye du man suma président ça il a naan le droit mais nag wax wax si jëm boppam ku yóbbu ku ku dem ci yoon wax moo la fa yóbbu bu ñuy fàttaliku tey jii ki nga xam ne moo jiite réew mi mais pourtant ba ñu koy arrêté lu ñu ko arrêté dañ ne outrage à magistrat te bind rek la def page Facebook am waxul wax du tegginawul waxul dara bind rek la def sur sa page Facebook il a été waa kii nag tey mu jiite tey réew mi nit yëkkati kàddu yu mel noonu di ab responsable APR loolu sénégalais yu bëri dañu ko ñaawlu. dañu ko naqarlu ñu ci baree bari na dañu naqarlu wax ji nga xam ne Ahmed Suzanne Camara wax na ko jéeme ko ci ki nga xamante ne nii mooy njiital réew mi parce que ñoom bi ñu fi nekkee ñun ñu ngi fàttaliku arrestation euh, bi nga xam ne defoon defoon nañ ko ci Bara Gaye meeru yëmbal ca mitin ba Mbàkke te lam waxoon lu ko loolu la Aziz euh, euh, Ahmed Suzanne Camara miy ñu ngi fàttaliku El Hadj Amadou Sall biñ koy arrêté yaa ngi dégg la mu waxoon lu ko raw moom la Ahmed Suzanne kamara mi wax donc jàpp nañ ne Ahmed Suzanne Camara du nit ku du nit ku ku am yar en en communication du nit koo xamante ne nii bu buggee wax dana wax loo xam ne jàpp na lii mu wax jéggiwut démocratie mais daf koy teg ci kaw réewande da koy teg ci kaw loo xamante ne kenn mënu ko comprendre nga jàpp ne lii buñ ko bàyyee mu jàll. dana dem ba mu jàpp ne moom heure bu ko heure bu toggatee ci plateau télé lu ko neex war na ko mën a wax